mu lil na njub la Moustapha doon woote juróom téeméeri junni yónnentu ya ñaar fukki junni ak ñeent ñoom ñëpp njub moo leen taxoon a ñëw ci kaw suuf su ma sittata suurin bañ ca tegtalee juróom benn weer juróom benn weer a ca jot des pour Moustapha am ñeent fukki at fanweeri at ak juróom-ñeent laa la wax ak juróom-ñenn weer boo ca tegee juróom benn weer muy ñeent fukki at yónnentu bu ñu war a yónni si boo amee ñeent fukki at sa yónnentu yaa mat مصطفى دوغا تخاو والله ارسله للعالمين هدى ورحمه اسم جسلون حاج مالك نينا بمامع جسلون بلا وحم حاج مالك نينا جيم جيم ابا جادا جيم الفون باون تاون جيم ابا جا جيم نيات لا دغال بو باخ جسلون راسين جيروم بن لا ولا جيروم نيار jim ñett racine juróom-ñaar boo boolee ñett ak juróom-ñaar ñaata la fukk boo ca teggalee laam ga jas lun daf na jiim ne racine ne laam jiim ñett racine juróom-ñaar muy fukk nga tegtal ca laam muy fanweer muy quarante. Aliou lu mu wax. yàlla moo yónni Moustapha li mu ko jox yónni ko ko mooy njub alif lam mim alif lam mim wallahu alamu bi muraadi yàlla xam la mu ca namm am ñu ne déedéet ca mu fassiroone liif ga mooy yàlla mooy càppaacoli taqul ci kenn kenn taqul ci moom kenn juru ko jurul kenn waaye ko sopp yàlla nee na ñu màggal ko fi yawmi lisnayni fi yawmi waaye taxawal ma ci wallahu arsaluhu aliyu alif lam mim yàlla càppaacoli kenn taxul ci moom jokkuwul ci kenn wallahu arsalahu lil alamin hudan bayaafis be Seydina Muhammad gaa yi dañu ko songu ne ko am nañ yàllaay xaalis am yàllaay or am yàllaay përëm am yàllaay diamond am yàllaay silva dama ne wax ñu yow sa yàlla ji jan la ci yàlla ne ko allahu ahad wax leen ne sama yàlla ji kenn la mënta doo ñaar benn réew ñaari président mënuñ koo diriger l'autre meilleur dama ne benn réew benn président lay mën a am ay surga yu ko jàppale dama ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan kenn juru ko jurul kenn mu fassiru ne ne liif ga mooy allahu mooy yàlla mooy dëgg-dëgg turu yàlla wa dama ne moom mooy yónnee ku mu yónni Seydina Aliyu ka yàlla yónni mooy Jibril mooy laam ga moo tax ba ñu ko xëccee ba mu taxaw di xaw a niru yàlla dañu ko lonk ñu xëcc lonk lonk ba diri ko mu jëm ca miim ga Eh, ku ko sopp defal nii sa loxo ca kaw ku sopp rasulillahi defal nii Aliou ñu xëcc laam ga muy Jibril ñu yónni ko nag ca miim ga miim gaay miim xadam dellu miim deel kooku mooy xaatimu nabiina mooy imaamal mursalina la nabi baadu wala من أسر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كالزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعه موي يالا لام غا موي جبريل ميم غا موي محمد لوم كو يوني سالك الكتاب موي تيري بي ñu leen jox di alquran la rey ba fi kenn natable won ne deug la hudan lil muttaqina njub la ñeel ñu ragal yalla alladina yu'minuna bil qaybi bo xamul ñu ragal yalla ñan la moy ñi gëm des penc te ñewagul ويكشف سر محمد والله أسلع للعالمين moo tax ahmad shawqi kere bi rasulillahi judd mu ne wulidal huda fal kainatu diyau wa famu zamani tabashumu wa sanaaw waytu shamsira muhammadi wulidal huda wulidal huda wulidal huda eh kainatu diyau dama ne jub moo judd Moustapha mooy hudan moo tax mu ne ismada jëslun bila waxen loo teg shamsira muhammadin Haaji Malick nee na rasulullah ñu ngi ko yónni ci bésu altine ca weer wu màgg wala ñu ko yónnee nee na ñaar fukki at ci gannaaw buur bi ñu doon wax abrawis nee na Haaji Malick nee na rasulullah yi commencé na nag nee na fa mu tàmbale nee na wakaana badaan mu nga tàmbali ala hubil xalay ci bëgg wéetaay ma ne ku fonk wéetaay boo gisul malaaka daa gis jinne boo jommalewul da nga xoolal sama maam Bamba xaadimu rasul bàyyi basak baara góor gi tawlo Moustapha Carlo Murtada góor ga ca Touba góor ga ca màggal gu mag ga ca soror bu mag ba ca taw bu mag ba ca dëkk bu mag ba xaadimu rasul nee na waxal xaadimu rasul nee na bamba mom mi demoon ci géej gi liggéeyali rasul la ba ñu tuddee ko xaadimu rasul mooy wax li may bëgg a wax nee na fa kullu man anfaqa fi mawlidi musarraf nee na képp koo dundale nga ci guddi gi tey mba togg ci cere teg ca yàpp set sa ñeex مولد في مولد مشرف تقد كتدقي مالا بخير سر ولو بخدر درامي من بمبنينا دونتي عبد الرم غا جوخي ديالا دنا لا فايلو فوكو دون ma ne wakkaana bat an xalaahu bil xalaa yi la Moustapha nag commencé bëgg wéetaay ma ne ku bëgg wéetaay boo jommalewul danga nga jommi maam Bamba ba mu bëggee wéetaay daa jommale keneen ku fi bëgg wéetaay te doo defoo ni mu def da nga jommi way ko sob sidina muhammadin wakkaana bat an xalaahu bil xalaa ila an jaa ti xariru qursi lam yara eh, ca biir xuntuma ca xaaru iraq fa ko jibril fekk daal ko fay jommal nag moom rasulullah mu coono wu nag ca lañ ko njatt njatt bu sonn ee eh, rasulullah njatt nañu ko ak ak njatt nag ngir ngir ngir rek bëgg ko xamal arfi alquran yi nga xamne mo bëggal nek ci dënd moy kamel bi di xanoolul islam bam ne ko bam ne ko iqra yow rasulullah jàngal iqra jàngal ñatt ko rasulullah di yalkat nan ko lu may jàng xaw ma lu ma war a wax اسكرر بامو بامو مم رسول الله اسكرر جبريل بامونا الخط نجتغا اقدوري نانكو جنگل اقرا جنگل بسم ربك ستر برام ها آه، مصطفى جانغن فوفو توري الله يكن مستخم ويكسب سيدنا محمد وآب مرتعدا مما يرى فسيحا ايه بامو دلو كرغنك dal di ak soxna sa di karkari di lox naan ko xadijatu zammiluun yi sàng ma sàng ma yaakaar naa boo ma sàngee li may gis dootuma ko gis man dafa mel ni jinnee ma jàpp man rasulullah ee jigéen ñi déglu leen mel leen ni xadijatu sa jëkkër boo amee problème ca biti bu mu fekk problème ci biir ñaari problème xajul ci benn bopp xadijatun sakkanaat ma ne xadija doon dalal rasulullahi ba mu nekkee ca coono ba mu ngi ko naan